digg bëccëg gi waaye laata bu ñu siy soobu rek comme ni ñu koy defee dañ leen di jukkil li si nara gën a fa sa bokk na si bëccëgu setal suñu réew ñaareelu édition bi ni ki démb si gaaw gi lañ ko doon amal si senegal gi wërngal këpp Elimaanu jëwriñ yi Ousmane Sonko mu nga woon sa ndargee ci dem rek jiite ji liggéey ba nga xam ne ni doon nañ ko fa amal ba mu yëkkati ay kàddu nag euh, àdduna si lu ñeel napp gi si réewu Sénégal taxaw na tembe fas yéene rek andi si ay jooyanti rawatina si contrat yi nga xam ne réewu Sénégal xaatim na ko ak réewu moritani leeral yi si ndoxteelu bi la jotaay xibaar lay doon. daañu àddu it jëmale si juróom benn fukk ak juróomeelu sommet ordinaire bu CEDEAO di lëkkale rek di jotaay buy lëkkale njiitu réew ak euh, njiitu gouvernement yi nga xam ne ñoo bokk si bile keppaar yëfi tàmbali tey jii si dibeer gi sa Abuja sa réew Nigéria bokk na si li ñu war a waxtaanee mooy wàllum koom ñeel réew yi sekk CEDEAO dinañu àddu it jëmale si mbirum euh, réew Burkina Faso Mali ak Niger di ñetti réew yi nga xam ne dañoo fippu génne si. kuréel gi di CEDEAO leeral yit euh, si bi la jotaay xibaar lay doon daañu jeexaleek euh, élection législative yi sa réew France tey ji lañuy amal ñaareelu tour bi jàpp jàppaleen ni waxtu bi ñu waxee yéen nee nañ li mu yi nga xam ne wote nañ ba noppi buñ koy xayma si téeméer bu ne toll na si ñaar ak juróom benn mbokk yi li moo gën a fas si bopp jotaay xibaaru digg bëccëg gi neskis ñu ñëw ak yéen si atal gi njiitu réew Sénégal di Bassirou Diomaye fay niki démb la jóge fii si Ndakaaru utali nigeria war a dem Abuja war a teewee ji rek euh, juróom-benn fukkeel ak juróomeelu sommet bu sedd euh, CEDEAO di jotaay boo xam ne dafay lëkkale ñi jiite réewu CEDEAO yi ak ñi jiite gouvernement yu réew yooyee yëfi nag euh, di am si teewaayu ka jiite CEDEAO jamono gi tembe di njiital réew Nigéria di Bola bu jàppale ni nag si boobule sommet bokk na si ponk yi ñu war a kuréel ci biir CEDEAO lëkkale mag ña ñoom ñoo ñooy soloon seen dàll di dox rek tànk jàmm ci diggante CEDEAO ak réew bu mel ni euh, Mali Burkina Faso ak Niger jamono gi tembe daal li ñu bëgg mooy réew yooye ñëwaat dugg ci biir CEDEAO daañu ci ñëw ci ñu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen i jotaay xibaar lii it xibaar la ci tënk ñeel maire bu euh, Ndargeec di Mansour Faye ak euh, kii fi nekkoon Elimaanu Joriña di Aminata Touré moom Mansour Faye nag yóbbu na kii di Aminata Touré fa mbaxane doone benn la mu koy toppee rek mooy diffamation maanaam yàq der Aminata Touré googee nga xam ne dafa tudd Mansour Faye si lu ñeel luubal bu ñu ne dañu ko luubal fonds force Covid 19 di fonds boo xam ne mu ngi tollu woon si junni milliards si suñu koppar mbir mi nag daañu ko àtte si tribunal bu Ndakaaru ñaar fukki fa ak juróom-ñaar juillet gi ñu nekk nii. junj naa leen ko si boppu xibaar yi élimaanu jëwriñ yi di usmaan Sonko niki démb moo nga woon sa Ndar ca demoon rek euh, teewee ji ñaareelu édition bëccëgu setal suñu réew moom Ousmane Sonko ba mu yëkkatee ay kàddu dikkaat na rek si solos euh, boobule bëccëg ñuy amal set setal si Sénégal gi wërngal képp muy sàkku rekk si askan wi ñu sax dàkk si lu ni di defar rekk suñuy dëkkuwaay ba mu set wecc àdduna it si lu ñeel wàllum napp gi.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 xew-xew doon am ni ki démb sa ndar géej moom ilimaanu jëwriñ ji yëkkati na ay kàddu yi te jagleel ko directeur général bu ONAS li muy daal sàkku mooy ñu indi ko ay leeral si rek euh, koppar ga nga xam ne dañ ko dugal si tabaxum ab station de pompage foofee c'est Saint-Louis mu di nag euh, liggéey goo xam ne koppar fa dugal ne nañ toll na si juróom benn fukki milliards si suñu koppar Ousmane ko daal li mu bëgg mooy ñu defu rapport boo xam ne daana leeral yëfi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 agence sénégalaise de promotion touristique ñoom it ni ki démb dugal nañu seen loxo bu baax a baax si bëccëgub set setal gi doon amal si Sénégal gi wërngal këpp directeur général bu ASPT li muy sàkku daal si nguur gi fi mu tollu tembe mooy ñu gën leen a dooleel ngir rek ñu mën a ñoŋal tourisme gi fi si réewu Sénégal. mu mel ni euh, élément bi amagul du ñàkk dinañ si ñëw si suñu yeneen yeneeni jotaayu xibaar sa commune bu Cambérène ñoom it ni ki démb doon nañ fa amal ab euh, set setal bu mag a mag yamuñu rek si setal doon nañ fa sax jëmbatit ay euh, garab mu di rek lu ñeel bëccëgu setal suñu réew ni ngeen ko xamee ñaareelu édition bi ni ki démb si gaaw gi lañ ko doon amal fii si réewu Sénégal maire ba ba mu yëkkati ay kàddu moom maire bu Cambérène mu ngi rek sàkku si askan wi ñu sax dàkk si lu ni mel sax rek si lu ñeel setal seeni dëkkuwaay. Cambérène a répondu à la deuxième opération mensuelle seetal suñu réew en sa tête le maire de la commune maire bi nag daat jiite yëf yi. Aujourd'hui en tant que maire premier magistrat de cette commune nous nous nous avons nous décidé de traduire cet appel-là en acte concret en rassemblant l'ensemble de nos compatriotes l'ensemble de nos frères fils de nos neveux pour traduire cet acte, cette volonté-là, cette vision en acte concret. Après le nettoiement, ça ne suivi le reboisement pour avoir une ville verdoyante au bonheur des populations. Exactement. Nous, avons, nous voulons coupler cette activité de cette cétale qui va nous permettre de désensabler, de remettre les grilles à valoir, mais aussi de dérouler une opération de, euh, de reboisement. Nous allons tout à l'heure aller sur les deux voies qu'on avait déjà aménagées en bac, Aujourd'hui, on va profiter de cette activité-là pour reboiser cette voie principale qui mène vers Cambérène. Le suivi devient un défi à relever pour la pérennisation de ces activités citoyennes et civiques. tey si lu soxal xibaaru gi dañuy euh, dem ba Grand Dakar foofee moom. askan wa nga xam ne ñoo dëkkee sa booru yoonu BRT bi jamono gi waxuñu dara gannaaw rek opération de déguerpissement yoo xam ne ni euh, kilifa yi jiite gox ba doon nañ ko amal yëkkati rek euh, ña nga xam ne ñoo nekkoon sa boobu boobule xàll doon ko xatal fi doon jural askan wi ay lorange ci seen wàll dem ak dikk askanu Grand Dakar nag li ñu sàkku si kilifa yi jamono gi tembe mooy rek ñu fexe ba lu ni mel dootul amati foofe sa Grand Dakar. circulation bi amul dara lu koy gàllankoor loolee nag li ko waral moo di opération de yi ñu fi amal alxamis bi ñu génn ñaari jaaykat yi le nag léegi daanaka butiku mbagg lañ daal di yore ñoom nag li ñuy ñaan moo di ñu daal di leen jox ay ndàmpaay ni ñu ko defee ngir seen yeneen moroom yi. waa mairie ñëw na nee na ñu ne amuñ droit pour toogu clients yi fekk ñu ci biti mais yaa xam na affaire bi yombul. ah yaakaar nañ ñu kay parce que sa waay ki ñëw ramasse say bagage yóbbu ko mairie comprendre nga sànni ko foofu nga dem fay ñu soog la ko jox. ca boobu waxtu nag ñi yeewoo ca Grand Dakar di rafetlu li ñu jëlee jaaykat yi ci kaw tali bi. dama koy rafet ndax bu fekkee euh, euh, njëriñu benn nit wala wala fukki nit moom mooy moom mooy xañ ñeneen ñi ñoo xam ne téeméeri téeméeri junni nit ñoo xam ne dañoo war a dañoo war a circuler normalement ñu xañ leen loolu tamit. mais sincèrement ça ne vaut pas ñu leen bàyyee yooyu tey dañuy obligé jaar si tali bi wala si biir fleur yi ku mu neex nga aju ci kaw jaay mais yoon bii c'est pour les piétons. yemuñu ci loolu ñu daal di ñaax rek njiit yi ba ñu daal di biiral yile opération yi ñu amal. am na yeneen côté yoo xam ne moom moo gën a xatati waaw waaw donc dañu bëgg daal ah, buñ ci def xaaj ak seen. ku nekk bu jëlee wàllam erreur du am wala buy am du bëri. ci fan yi génnoo nag façon njaay bu nekk ngay daal di gis. ci kaw trottoir yi rawatina ci peggu bus rapide transit bi moo taxit bañ fa jëlee yile jaaykat ba pare mairie Grand Dakar moo ngi woy di amale opération di ko nemmeeku bu ñu sukkandikoo ci ñi ñu tàllal suñu lantinoor ba ci ñetti yoon dina ñëw ngir nemmeeku bu dee jaaykat yi ñëwaataguñu Omar Thiam gannaaw Grand Dakar dañuy dem euh, sa diwaanu Fatick Fatick nag gannaaw ba fa rek euh, lakk gu métti amee sa seen marché central maire ba di Matar Ba sol na dàllam dem rek massawu ji ñi nga xam ne ñoo loru si mbir mi demeewu fa nag loxoy neen ndax euh, may na leen lu tollook fukki million si suñu koppar ba mu yëkkataay kàddu sax xam leneen ni balaa yàgg daañu amal sa boobule marché ay opération liggéey yoo xam ne sàkku teef bi du lenn lu dul indi werante ci marché bi defaraat anam gi nga xamee ne noonu la jaaykat yi lale kàddu yi ma tax ba ak Khadim Silla mi jiite commerçant yu marché central bu Fatick la ñu teewlu seeni kàddu ci micro Maguette mbay ak Alassane Ba. gannaaw lakk bi amoon ci marché central bu Fatick maire bu bokk moomeel gi xëy na def fa ak doxuk saytu ngir mastawu yi la jaaykat tey dañu ñëwoon di xool si ndog bi nga xam ne am na ci marché central bi bi nga xamante ne xew na ba sapeur jóg ci préfet jóg ci mairie bi jóg ci waa Fatick yëpp jóg ci ñëw taxawu ñi lakkale ba dalal leen ba defal leen ba métit gi wàññeeku ci ñoom parce que ñëpp xam nañ ne liggéey sa alal ba mu toll nii di ko xool muy lakk ba jeex neexul parce que ñi mu dal seen kaw wane nañ ñi ngëm yàlla bu mat sëkk. ci bile ndaje assise nationale daal di fay teew yëkkati ay kàddu jëmale ko ci nguur gi ak ñi ngànk bokk moomeel gi ngir ñu gën a jooyanti melokaanu marché yi ak nekkinu jaaykat yi. tey képp ku dugg ci marché bi visité ko rek war ngaa xam ne marché warul mel nii kon war nañ mën a jéem a moderniser marché yi ndax ku ne xam na ni marché dafa soxla police boo xam ne mooy jubanti nit ñi leen teg ci yoon loolu waral kuréel liñ mën ñuy dajale lu ci mel ni assise ànd ak suñu marché képp koo xam ne am nga cantine ñu ne sa cantine fii nga yem bépp doxandeem bu jógee feneen ñëw bëgg a occuper mbedd mi ñu xamante ne ah lii kat ci droit loolu nag commerçant moo koy def waaye autorité bi moom moo jël responsabilité boobu jàpp nañu loolu bu amee ànd ak modernisation marché yi nga xam ne état lancé na ko mu promotion moom mu jàppale maire yi aussi ci projet boobu mu doon loo xam ne du diire jiyee ji metti lool waaral bokk moomeel bu Fatick fas yéene yëkkati ndàmpaay lu ci fukki million jagleel ko ñu loru ci bile lakk mairie bi bi ñu ñooy waxtaan ak ñoom tax ñu jël fukki million war koo jox ñi nga xamante ne ñooy fukki nit ñi ak ñeent ñi nga xamante ne ñoom la seen i cantine wala seen i lakk ba jeex loolu nag ndimbal la bu jógee ci mairie bi. jëm ci askan wi te xam ne li ñu def ci ñoom it xaalisu askan wi la. maire bu commune bu Fatick di xamle ne ñu ngi ci tànki tabaxaat marché bu bees. waaye balaa boobee daan def seen kem kàttan ngir gën ñoŋal. marché central bu Fatick. dañuy xuus rek point e. àddu jëmale si coow li dox jamono gi si benn euh, société euh, de gardiennage ak ay bailleurs di maanaam ña moom bërëb ba nga xam ne foofee la société bi sanc ndax nee nañu daal euh, bâtiment ba dafa màgget lool boobu ba léegi nag bailleurs yi di ñi moom kër ga ñoo ngi wëy di ñaan ñoo ñooñee nekk sa boobule société ñu jog sa boobule bërëb ndax daal yëf ya màgget na wóoratul dañuy ragal rek mu màbb si seen kaw waaye boobu daal boobu ba léegi daal yëf yi mënta sotti ndax bailleurs yi nee nañu Euh, bind nañu ay yoon yoon ay bataaxalu kalaame jébbal ko yoon waaye ba tey dara mënta sotti. dafa am benn société bu ñuy woowee Dakar Interim Sécurité muy liggéey ci wàllum sécurité gardiennage ak transfert de fonds ñoom ñu luwee kër gi depuis 1997. en 2014 ñu ñëw seet si borom kër gi ne ko ah daf nga fi ñaar fukki at ak lu tegu <clears throat> kër gi ni ñu ko gisee nii lu mu mel baaxul. li ñu gënaloon moo ñu jël ko xool nu ñu koy defaraate mu nee ñu ah vraiment séq naa teraanga ak yéen jox leen ma rek délai madame ñu jox ko délai mu bàyyi ba délai bi di waaj a mu indi si ay jeexi jaata indi benn cabinet cabinet ñëw xool batiment bi ne batiment bi ah nu mu mel ni baaxul te ñu ko bàyyiwee nii mun na daanu si kaw nit yi. ñu yóbbu bâtiment euh, document bi jox ko mairie ñu jël autorisation de démolir bi yóbbu ko préfecture fu nekk antuwul fenn. mur yi dafa xar mur yi dafa xar loolu moo ñu tiital ndax ak lu mënti am ëllëg dañuy ne am ana borom kër gi li ñu bëgg rek mooy suñu njiit yi dañoo am yaakaar ci ñoom moo tax ñu leen di alerter ñu àddu jëmale si lu ñeel wàllu dem bekk dikk bi si biir géej conseil sénégalais des chargeurs di euh, COSEC ñoom jamono gi tembe nag dañoo taxaw rek bëgg gën a rafetal jaaral yoon yorinu euh, boobu la xeetu transport loolee tax rek ñu nas ay pexe yu bëree bëri te njort nañu ne pexe yooyee bu sottee yëfi nag mën na jur ay emploi maanaam xëy yoo xam ne ndaw yi daañu si mën a jariñoo bu baax a baax dañuy teewlu kàddu directrice bu COSEC di Roxaya caam pays africains yi suñu marché yi dafa xat industrie yi li ñuy produire dafa marché bi dafay xat yaatal nañ ko euh, loo daan jaay ci benn réew boo amee possibilité jaay ko ci juróom fukki réew ak ñeent xam nga ni sa marché yaatu na mais euh, boo duggee ci zone de libre-échange day fekk nga am loo jaay li ci dàqoon nag mooy ñu ne réew mu ne nangam caméra di boo ko bëggee réew sàngam a koy def piis réew sàngam moo ci spécialisé euh, boo boo lijjantee ba am loo jaay nga am lu la nga jaay. ñi ki euh, démb fii si Ndakaaru doon nañ fi amal waxtaan bu rëy rëy sa UCAD Université chante Anta Diop bu Ndakaaru lañ doon waxtaanee rek mooy euh, mbirum euh, pétrole beeg gaz bi fii si réewu Sénégal bokk na si ponk yi nga xam ne càmbar nañ ko sa boobu jotaay mooy rek ana naka la réew mi mën a jëfandikoo koppar gi war a tukkee si yooyu les ressources ak it yi nguur gi ne fas na ko yéene càmbaraat gën ko jaarale si yoon basken wi gën see gis seen bopp. Sénégal yaakaar bu mag la am ci exploitation pétrole ak gaz bi nga xam ne génnee nañu premier baril pétrole bi ci fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu génn waaye nag bëri na itam ñi nga xam ne am nañ ci xel ñaar ci li jëm ci wàllug bénéfice yi ndax nag jàpp nañu ne téeméer boo ci jël rek Sénégal fukk rek la ci am waaye nag ñi nga xamante ne seen xel màcc na jëm ci wàllu wa jàpp ne dina romb dix pour cent. ci firnde bu ñu doon produire juróom fukk jàpp téeméer junni baril état bu Sénégal téeméer boo jël ñaar fukk képp la ci moom waa JV ñoom ñooy moom juróom ñetti fukk yi. kon vingt pour cent lay doon au lieu dix pour sax. droit douane yi nga xam ne war nañ ko fay impôts yi waaye itam li ñu dippe l'IBNC nga xam ne pays sous-traitants yi ñoo ko war a fay waaye itam wàllu mi nga xam ne Petrosen am na ci. 80 pour cent yooyu à la fin de la journée ñaata lay dikkaat day dikkaat day wàññeeku ba 40 pour cent pour lu ñuy woowee Woodside en tant que tel donc si 25 pour cent yooyu li nekkoon 80 20 pour cent mun na dem ba nekk 60 40 pour cent te bi état du Sénégal moo ko am. révision contrat pétrolier yi nag bokkoon na ci promesse électorale bu président Diomaye fay waaye nag laaj bi ñuy samp mu di ndax njiitu réew mi. am na ay marge de manœuvre ngir xoolaat te contrat yi nga xam ne ci ancien code pétrolier bu 1998 la ñu sukkandiku ngir signé leen bi ñu sukkandikoo nag ci professeur mi nga xam ne xelam màcc na jëm ci wàllub yoon loolee lu mën a nekk la. renégociation mën na possible waaye il faut un écrit ça maanaam dañ koy bind première condition ak deuxième condition maanaam il faut ñaar parties yi d' accord. depuis fukki fan ak benn ci weeru juin gi ñu weesu Sénégal bokk na ci kuréel bi boot pays producteur pétrole yi gannaaw bu champ Sangomar bi génnee baril pétrole am bu njëkk. dañuy euh, àddu jëmale si lu soxal xibaaru wér gu yaram dem sa hôpitalu Bambey jamono gi nag la tiital ñuy liggéey sa boobu la hôpital mooy rek euh, kaw avortement yu bëri ne. dañu ko nemmeeku fi mu tollu tembe mu di ay jigéen yoo xam ne dañuy rek euh, yàq seen ëmb nee nañ ci weeru juin gi ñu génn rek wàññi nañ fa lu tollook juróom benn fukki cas foofee sa hôpital bu Bambey nee nañ nag ñu bëri ci yooyu lee soxna nanguwuñu def li di planification familial dañuy teewlu leerali ak Ndeye Fatou Wade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 phénoménal général Kara mooy turu téere bi nga xam ne ni euh, soxna Dieng Mbacke moom moo ko bind moom soxna Dieng Mbacke di soxna si Serigne Modou Kara sa téere googee nag euh, dafa dikkaat rek si jaar jaaru sëñ Modou Kara cérémonie de dédicace bi ki démb lañ ko doon amal si teewaayu ay kilifa yu bëri yu nekk si làngu politique gi ak it si kër yi diine yi. mbooloo bu takkoo takku moo daal di ñëw fekkee bile cérémonie ay taalibe. homme politique wala sax acteur société civile ñëwoon fii ci grand théâtre tey nekkoon cérémonie dédicace livre ñu tuddee phénomène général Kara livre bi di dellu si bu baax a baax si jaar-jaaram di ko bind di soxna Jee Mbàkke bind nag ci ku mel ni Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ni moo raw ndax euh, dafa am ay melokaan yu bokkul euh, yàlla daf ko defal tamit mu nekk koo xam ne Euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul rek ma itam. bile livre mu tàmbali ko bind ci atum 2020 ñeenti at a ngi nii mu nekk di ci liggéey ngir rek daal di xamle waat bu baax a baax ana kan mooy Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni li mu jàpp mooy nit ñi dañ koo desee xam ba léegi. may nettali euh, ay yu xew ci ci àddinaam bi mu nekkee tout tànk bi mu doonee mag bi mu doonee xalifa Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni Mathieu Beyti euh, noonu daal laa ko bindee. moom mi lay doon soxna si sëriñ Modou Kara Mbacké tax na muy xamle ni yombul benn yoon daal di bind si sa boroom kër wante tamit dellu si wàcc ki nga xamante ni nii dafa nekk rek benn guide bu multidimensionnel. ah diggante bi de peut que su rattaxul woon neexul woon. mën naam dama bind ci moom mhm. waaye wax dëgg yàlla nit ku baax la nit ku yaatu la nit ku jaboote ñëpp mhm. euh, koo xam ne xol bi dafa weex tal tal tal mhm. xam ne ñëpp la yéene lu baax euh, te lépp daal ku ko bëgg jàppale daal jàppale ko ci jërëjëf sëñ Touba ñu euh, jeexalee ak bi la xibaar si tënk ñel rek élection législative ñaari lu tour bi ñu amal tey jii sa réew France lu tollook euh, juróom fukki million wi électeurs la ñu woo Sébène Gathie ngir rek euh, ñu amal ñaareelu tuuru boobule élection jàpp leen ni nag des na lu tollook juróomi téeméeri siège ak benn sa seen pencum ndaw réew si juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ya nga xam ne moom la seen assemblée nationale am si ay siège lu tollook junnikaan candidat ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo samp seen nënd nee nañu daal euh, bi di jotee taux de participation bi maanaam électeurs yi nga xam ne wote nañu ba noppi bu ñu koy natt dafay toll ci téeméer boo jël euh, ñaar fukk ak juróom benn ya euh, enjeu bi maanaam daal lii di coow li jamono gi sa boobule élection mooy rek xam waaw wala déet ndax parti rassemblement national bu Marine Le Pen dina am majorité maanaam dina ëpp lay baat sa pencum ndaw réew bu réew France Fass mbokk yi doon teewlu cant ak ngërëm ñeel na leen fii la ñuy ndax képpe bi la jotaay xibaar amoon mbégte lool doon jàkkaarloo ak yéen si kanam tuuti bu juróomi waxtu jotee di 17h dinaa fi dikkaat bu neexee yàlla tënk xibaar yi si kàllaamay kocc ak nasaraan ñu bàyyi leen ngeen woy ak programme seen chaîne de télévision 7TV.